c'est la référence. waaye tey li may jottali neexut ma neexut leen waaye dogalab yàlla la nag neex nañu mooy Sayda Mariama bintu Seyxul Islam la ñu wax ne wàcc na liggéey. Alfayda c'est la référence. moom du Sayda Mariama xaadimatul Quran mooy xaadimatul Quran mooy liggéeykatu alxuraan ba xaadimatul Quran bàyyi ma ma ko daan waaye alhamdulillah. Alfayda c'est la référence. dañoo bañoon a yàq seen indaay. mu ne dafa bañoon a yàq seen yendaay. moo tax annoncé wuñ leen ko. moo tax annoncé wu leen ko. mais Cheikh Amary.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 yal na mat na yegg na mat na leer na. mat na mënut barke na ndax lu tiis la. dafa métti. dafa métti na trop. ñu ngi koy massa ñu ngi koy jaal. moom suñu xalis Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass. Alfayda c'est la référence. Sayyidatal kawni. yaa Mariama yaa taaru. taaroo taaral nga lii qur'aani yaa taaru teral nga barhaama ak fay doom bi ñépp la kañ teral nga diina jibil qur'aani yaa taaru wëral ma àdduna kuy xaari ba yaa ko ko def ak kuy imaam ba farans maryaama yaa taaru yaa donn barham sagal astu ne moo ko xasoon ku bëgg lem ñeme yëmb loolu moo taaru jaaleel ma cheikh maaxi alxalifa mooy ki fi mag amal kalifa da koy mat mat ko moo taaru sa yéegu firdaw si bil quraan ndaw lu kowe ku dem ba seen la fa nel Mariama yaa taaru. Alfayda c'est la référence. Seyda Mariama yàlla mi ko jël jël na ko yërëm. dëkkale koog yonent yàlla Muhammad mooy mu dëkkale koog Seyxu Tijaan Sërif radiyallahu ak mu dëkkale koog baayam bu tedd ba baayam la sëriñam la xaritam la Seyda Mariama loolu xam naa ci dara bu baax a baax mos naa euh, diis bàyyi benn soxla te xam naa soxla ba nu mu demee bàyyi yëlbati wëlbati kayit ba mu bindoon leetar ba ne ko maryamu uqnutii li rabbika wasjudi warka'i ma'a raaki'iin keroog la gëj a taxaw da ñaan baay wala muy tawatal baay soxla te booba dafa amoon jafe-jafe àdduna rek yi rek yi nga xam ne war-war yi te man man yaa gaguñ ca waaye lépp lu doon ñaan lu baay ci gannaaw si gi des na ci kanam ba mu de ko may kon yàkkamti baaxut ñu ngi koy jaale suñ bopp. Alfayda c'est la référence. xibaaru olof yi ci rajo Alfayda FM waxtu wi ñu ko jagleel daal dinay jot auditeurs yi ahlan bikum lii gën fës ci bopp xibaar yi ñeent fukki doomu aadama ak benn ñoom la corona bi faat file ci diiwaanu Kaolack ndàngaan te jamono jii may wax ak yéen juróom-ñaar fukki doomu aadama ak ñaar ñi nga tëdd lalu hôpital juróom-ñaar ñi ñoom ñi nga ca diggante dund ak dee du samay kàddu gouverneur bu diiwaanu kawlax moo xam la li ni mel ba tax mu sàkku ci askanu ñu xoolaat seen nekkin jël matuwaay rawatina takk ay masque ndax képp ko gëmut corona jàppal na loolu njuumte la ndax corona lu am la yaatal gi ci biir xibaar yi lay doon soxna Aminata Touré moom nag daal dinay sàkku ci kilifa yi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu liggéey mbënd mi ci diwaanu Kaolack ndangaan ñu gaawee ko balaa nawet bee dikkaat daal di sàkku ci na mag bu Sénégal mu dàmp ca na mu gën a gaawee borom kër yi nga xam ne dañoo daane seeni kër ca kawoon ñu nekk ci jafe-jafe yu doy waar waxtaanu wu mu séq ak rajo Alfayda FM ci la xamle li ni mel Ousmane Sonko njiital parti bi di Pastef mi ngi woon ci dëkk bu sell bi di Medina Baye niki démb andi woon njaalam ginnaaw wàccug liggéey a Cheikha Mariama bintu Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass mu daal di cay porox ndollu nag ñaawlu bu baax a baax doxalinu njiit makki Macky Sall ak gouvernement bi nga xam ne fa dégg ne fa ñoo fas yéene jël njàngum néegu sëy wala boog góor jigéen di ko jàngale suñu école yi mu jàpp na li ni mel gàcce rawut ko donte jëwriñ nag gi ñu dénk wàllu njàng meeg njàngale mi daal dinay weddi li ni mel li naqaree weddi nag mooy jafe-jafe yi nga xamante ne moom la saisonnier ya nekk ca Sonacos li njaan di jànk jànkuwanteel ndax gisatuñu gerte jamono ji ba tax ñuy yuuxu wàllu sàkku ci njiit réew Macky Sall mu dooleel bu baax directeur Sonacos ndax ñu mën a jënd gerte lu ko mooy làmbaay dana ñaaw lii nag bu yembee danañu ci toftal xibaaru biti réew yi ànd ci ak Cheikh Tidiane Sarr tàggat yaram ak Moussa kan toftal ci ganu xibaar yi jeexalee ko li ci yéene yi su ngeen taaxeerloo ma dikk ak yéen ci yaatal gi. Le journal. Omar Cissé. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu auditeur u Alfayda ginnaaw bu ñu leen nuyoo dal leen jàmm ci xibaaru wala fii ci rajo Alfayda FM tey ci alxamis ji ñu fas yéene nag doore ko ak lu soxal tolluwaayu mbas mi corona bi ci diwaanu Kaolack ndangaan fi mu toll nii jàq dëgg nag mi ngi door di jot. ndax ñeen fukki doomu aadama ak benn corona rey na leen fii Kaolack juróom-ñaar fukki doomu aadama ak ñaar ña tëdd lalu hôpital juróom-ñaar ña ña nga ca diggante dund ak fañ leen a sampal sowetaas gouverneur bu diwaan bi alin Alioune Badara Mbengue moo xam la li ni mel ñu teew teewlu ay kàddoom ci jokkoom ak Cheikh Tidiane Diagne. boobaa léegi mooy bi ma la période nga xam ne novembre la presque mi novembre ba tey may wax ak yow presque bët bu set nga dégg wala ñaari fan yu ne nga dégg ay kaa yu am kaw la ba tey jii ñu ngi toll ci soixante douze cas boobaak léegi lu toll ci weer soixante douze cas déclaré woon na fi muy juróom-ñaar fukk ak ñaar ñu yore feebar bi te ci juróom-ñaar fukk ak ñaar am na juróom-ñaari cas grave juróom-ñaari cas ñu nga xam ne nii maanaam ni ñu koy waxee sowetaas ñu ngi ci sowetaas xam nga sowetaas moom ku ci ne tal nga leneen te lii may wax nii ñi nga xam ne nii ñooy seeni mbokk xam nañ bu baax li may wax ñi mu dal nag aussi état bi seetaanu leen sant de traitement des épidémies fii nii ci hôpital bi fukki nit ak benn ñi nga fa tëdd sant de santé yaa ngi néew ñaari nit ñi nga fa tëdd clinique jaaraama fii ci Kaolack ñeenti nit ñi nga fa tëdd clinique Bukal ñaari nit nga fa tëdd clinique Lamp Fall juróom seeni kër lañ leen di bàyyi di leen suivre na ci ñeent fukki nit ak juróom-ñaar boo gisee ma wax lii pour que ma wax ay chiffres ñu dégg ko xam ne lii may wax ni c'est réel lu am la inventé wuñ ko donc ñu def attention chiffre bi mooy lii mooy li ma la wax ci li am diggante novembre ak décembre mooy lii mu dem ba law di law di law ba ñeenti téeméeri nit ak ñetti nit ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn suivre nañ leen ba wér nañ ne 251 ñi nga xam ne ñi ñi ngi leen di traité wax naa ko léegi muy muy 72 yi ci juróom-ñaar nekk ci cas am nañu si ñàkk seen bakkan mi ngi toll ci ñeent fukk ak benn xam nga loolu doy waar la ñeent fukki nit ak benn ñàkk nañ ci seen bakkat te ku ko weddi aussi ñi nga xam ne nii moom dal na seen njaboot dal na ku ñu xam dal na seen dëkkandoor ñoom duñ ko weddi ñeent fukki nit ak benn ñàkk nañ seen bakkan malheureusement nag am na aussi ñu nga xam ne nii duñ ko nangu am ñu muy daal ñu leen di suivre ñu jékki-jékki rek disparaître ñi nga xam ne seen i kër lañ ne ñu leen di suivre ñu toog ba mu yàgg rek loolu dañ xamante fu ñu dem fukk ak ñett wala ñu nga xam ne nii mënatuñ sax jot leen muy ñetti nit muy ñeenti nit geneen wàll ga moom gouverneur bu diwaanu Kaolack nag mi ngi daal di sàkku ci askan wi ñu jël matuwaay yi rawatina sol wàllug masque ñu bëri nag fa ñoo dëgër bopp lool am na sax ñu jàpp ne corona bi amul waaye li ni mel njuum te gënut koo rëy corona lu am la ba Badara Mbeng gouverneur bu diwaanu kaw Kaolack ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne. pour wax rek ne feebar bi dafa ñëw mais ñi ñi di continuer dëgër bopp ñu nag lu ñu ci man ñu ko ci def lu ñu ci man danañu ko ci wax ñu ngi def sensibilisation ñu ngi def information gendarmerie ak police ñu ngi jàpp ñu ñi di def ay amande même boo ne aw ma sax fay danañ la danañ la ba nga xam ne da xam ne da war a takk masque situation bi maanaam nag tey jii damay waxtaan a nit ñi pour wax leen ne leen en tout cas ñun dey dinañ continuer xeex bi mooy woo ñii ñi pour ñu seetaat bu baax seen bopp nañ moytuwaat malheureusement nag ñi ñi booy wax ak ñoom gannaaw dalagu leen wala am na ko nga xam ne gannaaw dalagu ko rek dafay yaakaar ne ay affaire caaxaan la quoi mais nag toog ba mu dal la moom musiba la wala toog ba mu dal ci sa njaboot nga door di xool ximis euh, la nañ xam ne am na ku nekk xam ne jomb la mën na laa dal gannaaw nag jombul kenn te mën naa dal ku ne parce que gis nañ ñi fi dal ku ko gisul aussi dégg nga ko dal na fi ay kilifa ah faagaagal na fi ay kilifa donc feebar la bu nga xam ne nii xamul ma sàmba xamul ma demba ah ku ko moytul jëloo ay matuwaay mën na la dal bul yaakaar nag yaa gën nit ñi yaa fi gën a baax ba du la dal amul ku mënul dal bon nag ne ñëpp moytu ne ñëpp moytu ñu ngi dem nag ci fête 31 décembre joxe bu soobee yàlla lieu de rassemblement yu ñu doon def fii ci dëkk bi lieu de rassemblement yooyu kenn du fa rassembler dinañ tere ko fay rassembler wu pour dóor ay pétard ak akolatanteeg di yuuxoo ko def yu kenn xamut yooyu c'est fini en tout cas 31 décembre bi moom duñ ko nangu parce que dafay indi ay problème jaxasoo boobu akolaat yi ñuy def

ko wax mu leer di souhaiter ñëpp une bonne et heureuse année 2021. ba tey ñu àddu ci corona bi nga xamante ne moo gën a fës ci atum 2020 bi rawatina fii ci diwaanu Kaolack ndangaan mi ngi gën di yokk ba tax nag matuwaay ñu war koo gën a jël ñaax askan wi moom la def ki xam la ni ni mel mooy soxna Aminata Touré mi ngi ñaax askan wi ci corona bi ay kàddoom ñu teewlu ko ak Cheikh Tidiane Diagne. 2020 moom dañuy ñaan mu jeex ak jàmm dëddoo ñu ak jàmm ak salaam ñëpp xam nañu ne 2020 moom li fi xew mu wër àddina gërgël ngëpp mooy Covid 19. yàlla def nag mu lor ñu bëri fii ci réew mi fii ci Sénégal kon dafa doon année boo xam ne buñ ko doon wax ci tubaab année wu épreuve la waaye yàlla nag mooy éprouver doomu aadama maanaam mooy teg tiis doomu adama Kaolack nag aussi bu ñu xoolee statistiques yi bërk démb yi gis nañ ne am na yokkute ci wàllu Covid 19 ci région bi yëpp kon nag damay gën a ñaax suma mbokk Kaolack waay muy ci région bi muy ci département bi muy ci ville bi ñu gën a fagaru xam feebar bi moom lu am la ñu góorgóorlu ci takk masque yi ban koo nag parce que bakkan moom li muy gën a bëgg mooy ngelaw liy dugg directement waaye nag bu yàlla wàccee lu mel ni dañu ciy jël ay matuwaay di raxas loxo yi dajaloo bi aussi buñ ko mënee moytu rek ñu moytu ko loolu it am na solo defe naa ne suñu kilifa diine yépp joxe nañu boobu tegtal kon fii nañ ci gën a góorgóorlu ndax gis nañu ne lim bi mu ngi xaw a yokk kooku yi dama ci bëgg a ñaax vraiment euh, sunu sunu mbokk yi bu baax a baax a baax ñu góorgóorlu ci seet xale yi aussi jàngal leen ñuy raxas seen loxo massawu aussi ñi nga xam ne feebar bi indi na gàllankoor ci seen liggéey te ñu bari lool muy ci wàllu ñu ne ci marché yi muy tailleur yi ndax ñëpp gis nañ ne ren amuñu traitu tabaski wala korité laal na tailleur yi bu baax a baax a baax waaye aussi secteur yëpp booy xool ndax ku ci ne nag aussi ca fa ngay yëngoo di ci tedd di ci yore sa njaboot ak secteur boo munti ne rek am na solo ci yow ci yow sa wàllu bopp donc ñoom ñëpp vraiment dañ leen di massawu ndax xam nañu ne jamono moom fi ñu tollu jafe na ci ñëpp. moom soxna Aminata ci émission bu mu séq ak rajo Alfayda en exclusivité sàkk ci nguurug Sénégal ñu dàmp borom kër yi nga xamante ne fa ñoo daane seen kër ya ca kawoon ñu nekk ci jafe-jafe yu baree bari wàllug inondation mbënd mi ci diwaanu Kaolack mi ngi sàkku tamit ñi ko yor ñu taxaw ci ci lam gën a gaawee balaa nawet bee ñëw gis-gisu soxna Aminata Touré ci tolluwaayu Kaolack ak Cheikh Tidiane Diagne bu dee sax mën neen koo tuddee ab responsable APR ba léegi ci làngu ko politique gi soxna Aminata Touré nag àdduna jëmale ci li nga xamante ne moo di téeméer ak juróom benn fukk ak borom kër yi nga xamante xamante ne jëlee nañu leen ca kawoon mu ñeel liggéeyu aéroport bi nga xamante ne ñu ngi ko fay amal moom njiitu conseil économique social environnemental bi fi woon nee na nag nguurub Sénégal nu mu gën a gaawee na damp borom kër yooyee. loolu moom aussi dafa war a doon lu baat xam ne yàkkamti nañu ko parce que yëkkati nañ leen ba noppi léegi nag war nañ leen a indemniser yóbbu leen feneen loolu dafa war a gaaw massa wu aussi ñi nga xam ne yëkkati nañ leen ndax dafa metti fekkee ne am aussi parce que man mi premier ministre na fa wala kër yu bees mais ñi ñu yëkkati rek nañ leen yóbbu feneen indemniser leen parce que am liñ naan cause d'utilité publique dafa am nombre bi takku na dëkk bu mel ni euh, li nga xam ne moo war a am ni ma ko waxee mooy ñu gaaw leen indemniser gaaw leen xëy na reloger ci urgence la war a bokk. ci waxtaan wu mu seq ak rajo Alfayda soxna Aminata Touré dikk na ci tolluwaayu mbënn mi nga xamante ne mu ngi am ci Kaolack nawet bu jot nee na liggéey yi nga xamante ne nguur gi sumb na k fii nañ ci xaar seen yi ba nawet bi bu ñëwee ñëpp mucc ci wàllug inondation production. accélérer la cadence mu gaaw bu ko defee Kaolack aussi bañ a vivre at li nga xam ne chaque année bu nawet jotee rek nga bëgg a toxu <laughs> wala nga <laughs> voilà yooyu moom vraiment euh, Kaolack waaye bëgg nañ a gaaw donc ñi koy liggéey vraiment ci bàyyi xel pour que soulagement population yi mën a gën a gaaw sunu dëkk la fa ne ci sunu xol. moom njiitu jëwrin yi fi woon rafetlu na taxawaayu ñuy yëngu ci wàllug wér-gi-yaram waaye nag li nu mel doyul la nguurub Sénégal nee na dafa war a yokk bërëbu fajukaay conditions de travail cet gi ci hôpital bi surtout ñu yokk ko vraiment bàyyi leen xel bu baax a baax a baax ndax wane nañ nag seen mën-mën kon loolu it euh, dëgg la ñu fexe aussi ba suñu centre de santé yi bu ko defee ñoom it ñu gën a sawar santé dafa di loo xam ne lii fa ngay commencer fa ngay terminer kon dañu fa war a nekk une grande priorité mais ci biir priorité yi aussi nañu wàcc ba ci poste de santé bi xool li nga xam ne mooy li ñu war a changer. kaddu yu ni mel responsable yoon ci wàllug politique. Cheikh Tidiane Diagne sant ngërëm ñeel na la soxna Mimi Touré moomu nag comme ni nga ko waxee ñëwoon na ci dëkk bu sell bii di mi dina bàyyi ngir daal di joxe ak njaalam ginnaaw wàccug liggéey Sayida Mariama bintu Cheikh al Islam El Hadji kàddu ya mu seede jëmale ko ci soxna si fi bàyyi ko yow la ko dénk. ci yeesal suma njaal ci Zeyda Mariama Niass mi nga xam ne moo fi jóge doon ku ñu ràññee woon ci Sénégal jigéen ju amoon taxawaay ci wàllu jàngale islam turam ne fu ne ci àddina bi bi may jaale sëriñ bi sëriñ Mahi maa ngi koy ziyaare bu baax mu ngi may xamal ne ba ci Soudan wàccel nañ ko fa ay kaamil Soudan moom defe naa ne sori na fii lool lool lool ak i Nigéria ak i pour wax leen rek soxna si dayuwaayam ak dimension xam kon yal na yàlla yokk leeram yàlla fay ko li mu def ci jàngale diine fii ci Sénégal demoon na jaale ji xalif général Medina Baye Cheikh Mouhamadou Mahi Niass feddali ko aussi vraiment mbokk gi cofeel gi ak taalibe gi jaale ko magam jigéenam ju màgg jooju nga xam ne mooy Zeyda Mariama Niass ni nu ko waxee nag tànkam ak euh, maanaam li mu fi bàyyi dañuy ñaan yàlla ful ko ba ay génération wu génération wu sénégalais continuer di nàmp ci xam-xam boobu nga xam ne bàyyi na ko fi am na ci xam bàyyi na ko fi seen institut boobu bëgg nañu dem ba mu doon université kon ku tàmbale woon ci école primaire ni ko xale yi doon waxee yaabo yi la ko xale yi doon waxee ku laabiir la woon bëggoon xale man it ma xamoon ko bu baax a baax dem ba indi loo xam ne li toll na ci dayuwaayu université macha allah ni ma ko waxee yal na yàlla yokk leeram yëkkati ko ci àjjana yee gën a kawe li mu wane foofu nag aussi mooy góor baax na jigéen baax na ci wàll yëpp ci fànn yëpp ndax moom tracé na yoon woo xam ne yoon wu ama ama am solo la ci diine mu nampe ko nag ci wayjuram ju baax jooju di Cheikh Baye Niass mi nga xam ne tey indi na fayda bi fu sore sore sore sore kon euh, jaadu woon nañu ñëw indi suñu njaal jébbal ko xalif général bu Medina Baye. Ousmane Sonko njiital parti bii di Pastef moom itamit mu ngi woon ci dëkk bu sell bii di Medina bàyyi andi ak njaalam ci wàccu liggéey Asayida Mariama Niass bi mu jàpp ne Sénégal mënuñ koo fay ndax lim defal alquran yar ay jigéen kenn amul fayam lu dul yàlla Ousmane Sonko. ak Cheikh Sarr. ñëwoon dox tànku jullit di sant yàlla bi ñu may ñu teew ànd ak wér ak tal ba mën a ñëw taxaw fii di présenter suñu condoléance di andi suñu njaal te li ci yéeme mooy man dem naa ca daara ja demaat ca jàngale al alquran nit mun na ko def mooy nanga fexe ba xale bi ñu ma dénk na mokkal rek waaye jikko ak xamal ko dëgg-dëgg lan mooy diine loolu doo ci sonn moom nag non seulement daan na sol alquran ci bopp xale yi ci seen dënd waaye leen doon mooy cër gi gën a sensible ci société bi mooy jigéen kon kooku Sénégal mënu koo fay àdduna mënu koo fay yàlla na ko yàlla rek fay yàlla na yàlla boole ko ci nit ñi nga xam ne digg na leen këru barzaq yu yaatu yi yu yànj yi yu rafet yi yu sedd yi yi nga xam ne da ngay tëdd ñu ubbi la sa palanteer nga jàkkaarloog nag say palais ak say château fële ci aljana di gërëm ñi ñu fi dalal ñëpp di nuyu waa dëkk bi yëpp tamit ndax Medina foyer religieux la di leen gërëm ci relation gi ñu am ak ñun cofeel woon saa suñ fi ñëwee nuyoo ak cant ak remerciement ki nga xam ne moom la yàlla teg tey mu jiite faydu bi muy Cheikh Mahi Niass Cheikh Mahi Niass du ma doyal mukk di feddali sama diggante ak moom yàlla mooy boole bët gi ma ko xoolee dafa weesu bëtu kilifa diine rek naam loolu la d'abord ci ñun te mu doy ci trop trop trop trop ndax dafa bokk ci kilifa diine yoo xam ne ku am settantal taxam tuuti ci diine di nga xam ni mat na ko ndax xam na àdduna jàng na àdduna jaar na fi mu war a jaar ba lépp xam ko ñun ñii di jaay intellectuel ak nangam ne amul lu ñu mun a wax lu mu xamul wala mu gën ñu koo xam waaye au delà li mu doon kilifa diine bàyyi la ci ñun. imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé moom ma nga woon ca Ndakaaru ca kër Yaaboy Seyda comme niñ ko doon wooyee ginnaaw bu mu wàccee liggéey imaamul akbar dem yóbbu njaalam ca njaboot ga fekk na fa suñu ndaw aaru Niang ñu teewlu ay kàddoom. ñu ñàkk nag ñun yaay la ci ñun te ñu ko doon xoolee jëmmi Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ngir lan ngir alquran ji nga xam ne moom la bàyyi tànn yàlla defal ko ko muy karaamam moom itam mu ñëw def ci lu éeme te jigéen bu nekkee saalihaatu ju baax rek nangul nañ ko waaye mu teg ci lim ci teg yëpp jël ay nit soppi leen bañ nekk ay nit ñu baax jël ay nit soppi leen ñu wattu téere yàlla bi bokkal ko jël ay nit soppi leen ba waxtu wa leen gisee rek fàttaliku alquran fàttaliku yàlla fàttaliku fàttali ko waxam fàttali ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu loolu lu yàlla di maye la ak góorgóorlu nit ki gannaaw boo xamee ne am na way jur yi ko jur mu nekk ñu baax ñoo xam ne ñu tànn lañ yokk na ci lu bëri loo xam ne liggéey boppam la nit ñi loolu moo leen utale man dama daan wax toujours ne damay bàyyi yi nga xam ne bàyyi moo leen yaral boppam waxtu ma leen gisee rek dafay mel ni bàyyi laa jàkkaarloo ndax ku ci nekk rek danga gis si moom ay jëfin yoo xam da xam ne lii ci bàyyi la jógee waaw loolu nag dara gënu koo màgg ñoom nag ñoom lañ doon ñoom dañ doon wettilikoo waaye li ma wax keroog bi ko tëralee ne ñu ngi ñaan yàlla mu utu place am ndax bu utoo place am rek loolu moo ñu mën a doy te moo ñu mën a jàngal itam damu damu bi nga xam ne damu damu bu rëy la waaye nag boo ko xoolee ci baatin rek da nga xam ne damu damu amut yàlla moo koy soppi mu nekk ay yaay booy yu bari yoo xam ne dootu nekkati benn yu bari lay doon yàlla defal na ko loolu ci dundam te loolu la koy defal gannaawam ba ba yàlla di fangee jaam yépp loolu rek mooy li nga xam ne mooy continuer te du taxaw mukk du dagg mukk xel yëpp dana dem ci alquran waxtu ñu tuddee turam xel yëpp dana dem ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass waxtu ñu tuddee turam xel yépp dana dem ci yàlla ak waxam dana dem ci yonantu bi ak waxam te loolu benn xewal féetewu ko kaw looloo tax ba ngeen di ñëw barki démb lañ bëggoon a ànd ak yéen ñëw waaye ma ne nañ xaar ba ngeen egg ba dal doora ñëw war woon leen ne lii man suma soxla bopp la te moom rek moo ma tax a jóg moo ma tax a jógee Kaolack aw ma fi beneen soxla maanaa ko ñoom Abdoulaye may leen suma kër sax du ma soxla pour wan leen ne maa yéen a ko bokk waaw lu mu mën di tëddee rek ñoo ko bokk ci kanamam ni ñu ko bokkee ci kanamam itam noonu lañ koy bokkee gannaawam incha allah yàlla saxal fi leeram yal na fi yàlla saxal terangaam yal na fi yàlla saxal barkeem yal na yàlla jotal leen lépp loo xam ne mu ngi ko indi woon ci yéen yal na ko yàlla def may leen itam seen may bopp yoo xam ne yéen a ko bëggal seen bopp yëpp yàlla mën na ko def. xibaar yi si Alfayda. ñu daal di àddu nag ci lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi nguurug Sénégal nag fa ñoo fas yéene dugal njàngale néegum sëy wala boog lépp luy dooleel mbiru góor jigéen ci école yi li ni mel na gàcce rawut ko Ousmane Sonko moo ko wax njiital Pastef Cheikh Tidiane saar moo ko teewee. mu ne gàcce la am ci débat bi nga xam ne yëkkati nañ ko fan yëpp ci réew mi di Sénégal soxal nag dugal bi ne danañ ko dugal ci biir programme njàng mi wàllum sëy wala sax wàllum góor jigéen yéeg-yéeg boo xam ne yéeg-yéegu gàcce la gàcce ak rus ndax nag réew mu mel ni Sénégal réew la boo xam ne ay valeur la ñu mus a xam laata islam di ñëw fii sax léeg-léeg nit ñi dañoo xamul luy ceddo waaye laata islam di ñëw sax suñuy maam ay valeur lañ doon dund ay góor dëgg la ñu woon ay góor dëgg la ñu woon moo tax islam yomb ci ñun ndax xaddis bi dafa ne ci gënoon ci yéen bi ngeen di nekk ci jaahiliya bu tuubee mooy gën ci yéen it valeur yooyu ñu hérité woon ci ñoom ndax jom fulla fayda ak nangam nangam daf fi nekkoon balaa islam di ñëw tax bi yomb ci ñu am fi ay nit yoo xam ne nu ne daj nañ ko ngir islaam bi ñun ñu fekk ko fi tubaab gi ne woon du fi am nu ne daj nañ ko fi tëj nañ fi ay nit génn nañ fi ay nit dëkk bi rey nañ fi ay nit lu ne am na fi ñoo ñu téye ci mbir mi ba mu dëgër héritage boobu yëpp nag ñu dajale tey héritage boobu la ñu ñëw ay nit toog di ko joggati ñun ñu seetaan leen. njiitalu parti Pastef Ousmane ko jàpp ne nguur Sénégal lañ ci war a jiiñ baaraam comme responsable ci li mel. te responsabilité bu njëkk nag mooy responsabilité nguur gi. ndax programme scolaire politique publique de l'éducation man du ma ko définir état moo koy définir moo tax ñu am ministère de l'éducation nationale te enseignants yi li ñu gis ñoom ba tax ñu génn man loolu laa gën a gëm leneen lu ñu ma wax te document yaa ngi circulé suñu toogee boo war a dugal suñuy école xale yu ndaw ñu naan leen nii nga war a séyee ñu def ko ci ay document ba pare ne non non non loolu du li ñun ñi di wax ñun tamit dafuñu waaye itam suñu responsabilité ñëpp la mooy société bi yëpp moo war a jóg Ousmane Sonko bi nga xam ne Seyda Ibrahima génn na àdduna jëwrin ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng mi ak njàngale mi di Mamadou taala moom nag daal dinay di ba tëdd ca naaj wa xibaar yooyu ñu génnee ne fa ñuy jàngale mbiru néegu sëy wala góor jigéen ci école yi li ni mel dara ca amut ay kàddoom Arouna Niang mooy ki ko taataan. dem ñu ngi wax ne si ay UNESCO ak leneen ay réforme bu ñu wax ne que mun na am ñu am si éducation si biir Sénégal li may wax rek mooy lu gàtt la amul benn réforme bu ñu envisagé tey lu dem si wàllu éducation au niveau du ministère de l' éducation nationale surtout si domaine bi ñuy wax ne nag boobu ay éducation sexuelle ou leneen loolu amul. maintenant li am mooy que amoon na fi benn projet bu fa nekkoon depuis deux mille dix huit et en ce moment sama prédécesseur mooy le ministre Serigne Mbaye Thiam nee leen que ñun on différent. loolu du fi am maintenant li ñu nangu woon def depuis 2018 moom lañ doon def bilan temps yi fale si mbuur projet boobu 2021 bii lay jeex loolu rek moo am matière bi ñu def économie familiale et sociale ak également suñu division bu ñu am moo xam ne moom mooy toppatooyu de mooy décembre ñoom li ñu def rek si éducation mooy si information si wàllu santé de la reproduction foofu la yem amul leneen lu bees amuñu beneen modile bu bees amul benn changement Sénégal dafa am ay réalité dañu am suñu culture dañu am suñu cosaan dañu am suñu religion donc ñun ñooy définir lan la ñu war a def comme éducation suñu réew donc vraiment débat amu fi warul am débat comme dégg naa ko nag démb ñëw naa fii si Thiès ma wax si pour que parents yi xam sëriñ yi xam élèves yi enseignants ñu xam ni ñu doon defee matière yooyu ba léegi noonu lañ koy defee tey noonu lañ koy defee suba. ña nga ca diwaan bu Ziguinchor foofa nag quartier ba nga xamante ne moom la ñuy wooyee Kenya ñoom nag kenn ñeewut leen ndax coupure courant mooy la leen ëlëm ba tax ñu yuuxu wàllu ndaw Mamadou Sagna seeti woon na leen. quartier Kenya bu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor toog na ay waxtu ñu courant askan wi yeewoo ci gox boobule xamatuñu lu ñuy def te ñaawlu nañu li ni mel la. tout le temps depuis temps nawet ba léegi saa su nekk coupure courant am ci dëkk bi bu amee si ñun Kenya goxu Kenya bi day am ay 48 heures 72 heures. boobu situation boo xam ne dafa métti métti métti ci ñun surtout ñun Kenya ñu fa dëkk presque ñu xaw a néew doole ñun daal sonn nañu parce toujours même explication la ñuy jox. loolu moom dëgg la ça fait trois jours amuñu courant te dund nañ ko dund bu metti sax. mu nekk ab situation mi nga xamante ne jural na leen ay lorange yu jéggi dayoo. donc munoo góorgóorlu nga indi sa ma teg mu jékki-jékki ako cause de coupure ravitaillement boobu nëpp ou bien nga góorgóorlu foraatu jënd sa télé wala sa frigo xam nga yooyu yëpp matériel boobu lu mu jaar mu jékki-jékki loolu yàqu. am na lu yàqu quoi ay dollimaa yooyu noonu bër daga bi yëpp parce xam nga instant courant bu amul mooy loolu day sëy quoi. frigo lépp li ñu fa dencoon moom lu bëri commencé na woon ne yàqu sax te ñu ngi koy mettit lu torop askan wi yeewoo ci gox boobu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor xamal nañ ni li ni mel bu wëyee dañu wàcc ci yoon mi prochainement buñ ko nar a def ñun dañu jóg yëngal woon ñu ni que ñun bokk nañu tam ci citoyen yi nekk Sénégal ginnaaw bu ñu toogee ay waxtu xamal nañ ni courant bi dellu siwaat na ci gox boobu boobulee Ziguinchor Mohamed Sagna Alfayda FM. digg nag bor la olof Njaay moo ko wax waaye ku weddi laajal Pape Demba bi tey bi nga xamante ne lépp lu mu digoon étudiant banlieue yi dëkk fii ki ak quartier yu ni mel ci diiwaanu Kaolack te nekk fële ca Ndakaaru jox na leen ndimbal lu am solo appartement bu ñu dëkk ñaari junney ticket restaurant Alassane mooy coordonnateur CREM. dëggal na li ni mel si jokkoom ak na Niang di wax ne sa diggante yow ak président Pape Demba bi tey du tey yàgg na te ñëpp xam nañ ko xam bi ñu ko xam nag moo tax toujours dañ leen di ñaanal seen ànd gën a dëgër seen taxawaay gën a dëgër ndax lii nga organisé xëy na munoon na am beneen impact mais ni ñu ko organisé xëy na gën na tax motiver président bi tey ba mu gën a def loxoom aussi gën a yokk loxoom par rapport à cela li ñuy wax nag bon on a signé bi ak loo xam ne ticket yi je euh, mu gën a le deux mille yi dañ ko def uniquement liñ ci gën a jublu suñuy doom lañ suñu jarbaal leen jàppale leen c'est pas échange de politique wala leneen mais dafa war suñ diggante ak ñoom parce ku si nekk tey am na loo xam ne muy man muy président bi muy Cheikh Baba am na lu mu bokk xale yi fi nekk nii tey loolu moo nekk objectifu remise bi tey jii au niveau de ce hôtel de la place ñu koy def tey nag euh, directeur général moo bëggoon a teewal boppam mais ku nekk xam na ne activité am chargé wu na trop trop trop ñu ànd fii ak une délégation boo xam ne ñoo représenté le mouvement CREM ànd seeg ñoom Maguette Diaw ñoom Djibril Aw ñoom Modou Touré ñoom Pape Nalla ñoom aussi ñu ñëw assister ñu pour ñu mun a toxee loolu tey kon Cheikh Baba ñu lay gërëm di la sant di rafetlu aussi organisation bi di wax ne sa diggante yow ak président Pape Demba bi tey du tey yàgg na te ñëpp xam nañ ko xam bi biñ ko xam nag moo tax toujours dañ leen di ñaanal seen ànd gën a dëgër seen taxawaay gën a dëgër ndax lii nga organiser xëy na munoon na am beneen impact mais ni nga ko organiser xëy na gën na tax motiver président bi tey ba mu gën a def loxoom aussi gën a yokk loxoom par rapport à cela ndimbal loolu nag ko am ginnaaw boo kilifa diina ca Kabatoki fa organiser woon ab bëccëg tudde woon ko Pape Demba Bitèye ngir mu jàppale étudiants yi comme nag def na ko moom Cheikh Baba gërëm na bu baax Pape Demba Bitèye ci taxawaayam ñu teewlu ay kàddoom ba tey ak Arouna Niang les étudiants de la banlieue novembre bi passé bi ñu defoon benn panel ci waxtaan journée de bien-être pour l' étudiant de la banlieue mu ñëwoon nekkoon parrain bi waaye aussi tamit ñëwoon participer ci mais aussi tamit pare pour jàppale leen pour le bien-être ci côté matériel muy appartement la digoon xale leen aussi tamit li nga xamante ni moom mooy moom mooy biis loolu yëpp moom moo ci nekk yooyu yëpp nag tey bu yàlla defee ñu toog ba boobu ñu Alassane Ndong bi nga xam ne mooy coordonnateur bi ak ñi ànd ak moom loon liggéey pour am appartement yi umpale woon ne appartement Dakar yombut mën nga am xaalis mais pour nga gis ko dafay jafe boo ko gisee tamit condition yi lay teg dafay métti loolu moo waral tardement bi mais bi tey bañ ci jógee oo na lépp mu ngi disposition heure bu ngeen paree pour engagé wu fay lépp Alassane di ci dox di ci dox ba tey alhamdulilahi na nag ci banlieue bi yëpp parce que bi tey doomu banlieue bi la yéen tamit ay doomu banlieue bi ngeen te dañuy wax ne boo jiwee benn pepp dugub di ko jëmbat di ko sooxat bu yàggee mu jox la mbool te bu la joxee mbool mu génne junne pepp anafoor boobu may utiliser tey mooy dama jàpp ne bi tey benn pepp la ci banlieue bi suñ ko suuxatee toppatoo ko motiver ko ëllëg mun na dem ba jàppale ay doomam ay jarbaatam ay rakam ba ëllëg ñu am ay junne bi ci banlieue bi objectif bi mooy ba alhamdulilahi rabbil alamin matal na ko dama jàpp ne yéen tey yi sas bi ci yéen la nekk défi bu rëy la leen Pape Mademba bi tey lancé mooy ne li nga xam ne mooy tax ngeen am bien-être pour la réussite de l'étudiant bokk na ci problème mu appartement bokk na ci problème mu logement bokk na ci problème mu transport donte seen rakk yi lañ ko may foofu muy ci banlieue bi xibaar yi ci Alfayda Sonacos Lindiane nag jàppale na presque benn gerte nekkut fa li ni mel nag ñi ko xamle du ñenn ñu mooy saisonniers yi nga xam ne ñu ngay dund jafe-jafe yu métti métti ba tax ñu sàkk ci nguurug Sénégal makki sàll mu dimbale bu baax du Diagne faada ba ñu mën a jënd gerte gi ndax li ni mel moo tax ñoom ña nga ca ay jafe-jafe yoo xam ne foo ko natt weesu na ko aadama gay kenn ca ñoom moo yoroon seen kàddu ñu teewlu ko ci jokkoom ak Alfayda ay Sonacos Lindiane dana doon toll jamono mi réceptionné vingt cinq mille ba ci trente mille te ngeen ñëw fekk fi deux fii ci Sonacos Lindiane mille cinq cent saisonniers Sonacos da koy jël tey nag ñu ngi toll ci fukki nik ak ñeent leen jël ci réception bi nga xam ne seko bu nekk da ci doon def juróom-ñaar fukki nik ak juróom huit heures de temps laa la wax fukki nit ak ñeent leen jël réception Sonacos bu ñu koy wax bu ñu seet ci village environnement bi Sonacos mu ngi ba ca bëti saalum réew mi tey transporteurs yi nga gis opérateurs yi seen chauffeurs yi am na ñoo xam ne campagne Lindiane la ñuy liggéey ñooñu liggéey ñu nga toog borom restaurant yi nga doon xool fii jamono yu ñu doon toog fii tey camion da doon nekk fii Lindiane borom passion yi nekk fi di jaay valeur des fii suñu gox Macky Sall ñu ñaan en tant que président technicien ngay jox wàllu agriculture tey nekk ci internet bi ci phase ñu calculer ay fausse poids teg ci deri Macky daf ñoo naqari campagne bi liñ déclaré un million huit cent mille tonnes ministre bi xam ko y des opérateurs yoo xam ne tey dañuy ñëw ku mel ni Lindiane jardin ñu indi fi camion vingt tonnes li ci des ñu compensé ko xaalis temps en tant que président Sonacos Lindiane siège boobu ñu nekk ay techniciens ñu fa ñu xam gerte filière arachidienne yaa ngi ko jox borom gerte parce que mbéy da ngay xam konkook sox sox ak ileer mais toog ci climatiseurs yi ma am ay techniciens yoo xam ne dañoo tayal fi ne loo soxla rek information vraiment ci net bi ñu jox la ko kon fausse estimation lañ def ñu koy ñaan en tant que président Sonacos ci njabootam la bokk Macky ay citoyen ñoo nga dooleel francs corps étranger gan keneen yëpp dañ ko war a respecté tey jii nag njaaxle boobu lañ am ba chinois yi ñëw devancé tey di jënde à trois kon na nga war a xam ne pour Macky Sall pour mu valorise affaire bi mooy mu aligné Mamadou Diagne Fada deux cent quatre vingt cinq yi nga doon jëndee ne la compenser dara nga jëndee à trois cent vingt francs loolu mooy suñu problème loolu la ñu wax Macky Sall mu bàyyi ñu xel dimbale Mamadou mu aligné en tant que directeur général. soxna ya nga xamante ne tamit seen i jëkkër fa ñuy liggéeyee ca Sonacos Lindiane ñoom itamit ay jafe-jafe ndax seen i borom liberté xamut fa ba tax ñu yuuxu wàllu faatu Diagne moo yoroon seen kàddu ñu teewlu ko ci jokkoom ak Alfayda waaw li ñu dajale ci seko Linjaan bi mooy boo gisee ñun jigéen ñi ñu mobiliser ñëw taxaw fii jigéen bu borom këram liggéeyul moom ci boppam mooy gën a sonn ci kër gerte gi bu ko chinois yi jëndee yóbbu ko suñu borom kër yi du ñu liggéey te bu ñu liggéeyul jafe-jafe am na loolu directeur Fada def na li ko war léegi nag ñuy ñaan président de la république mu jàppale ko di ñaan ministre yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci wetam ñu jàppale directeur généralu Sonacos pour waa Sonacos mun a jot ci gerte gi bu ñu ci jotee suñu borom kër yi liggéey inscription sax suñu doom yi fayaguñu ko njaboot yi tas nañ président de la république jàppale directeur bi mu jënd gerte gi liggéey am suñu borom kër yi liggéey indi suñu kër yi ñu ni tamit wax dëgg yàlla ñu mun a naan élection yi ñun ñëpp ak suñu njaboot président Macky Sall la ñu jàppale kon nag ñun ñu koy ñaan moom i tamit nañu jàppale jot na fi mu toll taxaw inscription sax ñun fayeeguñ ko suñu doom yi ndax bu sa jëkkër liggéey nooy fay inscription du fourniture du dara sonn nañ instant bii ñii bu ñu añee du ñu reer bu borom kër liggéeyul yow jigéen bi da ngay sonn naka ngay def ba taal suñu borom kër yi liggéey liggéey ñu daaw liggéey ñu ren ñu ngi interpellé monsieur Macky Sall le président de la République wàll gi yëpp ñu ngi waaj di dem ci mbëkk mi ñii ngi nëbbatu di dem ñii ngi lijjanti ay xaalis di dem te xam nga loolu tamit bu yàggee du baax ci ñun ñu daal di dem nag ca tribunal bu diwaanu Kaolack ndangaan addu ci lépp lu jëm ci wàllu ko xattee niki démb nag fukki dossier ak juróom-ñaar ñoom la ñu fa àtte suñu ndaw soxna Ndeye Fatou Cissé teewoon na àtte ya ñu déglu nettali gi. démb ca su audience flagrant délit bu TGI bu Kaolack àtteekat yi càmbar nañu fa fukki dossier ak juróom-ñaar ñeel la ñaar fukki nit fukk ak juróom-ñaari dossier yooyu nag am na ca juróom-ñeent yoo xam ne mbirum drogue la diggante tey ngir toox mbaa di ko jaay wala may ay nit ña taxawoon na démb ca kanamu tribunal te juróom-ñeent dossier yooyu ñeel leen ñu tolloon sax ci fukki nit ak benn diggante coof ak ndar ndaw. Mbaaw jàpp poste kër Ayib la leen way takk der yi tegee woon loxo ñaar ca ñoom gannaaw seenub àtte tribunal ba dalee naa mujjee féexal ndax ñàkk am lu leer mu ne ci ne ñooñee ñoo def am déet li ñu leen doon toppee ña ca des ñii benn weer ni penu wa avertissement di la leen ba doon wax gannaaw ba ñu leen àttee ndax sine sineebar ñeneen ña ñoom ma ñaari àtte yu ñu tëdd gannaaw ba tribunal ba dëggale ne dañu doon jaay wala may ay nit yà bërëb bu àtteekaay boobee jibal na fa daanu pa ñetti weer yu muy tëdd jëmale nag ci ab borom kër boo xam ni daa xañoon jàmm soxnaam ndax bunn xataal ak fitna ba kookee nag mujjee yóbbu mbir mi ci kanamu yoon mbirum accident tamit bokkoon na ca dossier ya àtteekat yi càmbar démb ca daan yanu fa jibal nag bokk na ci ñaari ati ci ab chauffeur bu defoon accident ba am nag góor bu ca ñàkk bakkanam gannaaw ñaari ati kaso yooyee nag démb tribunal ko tëddee ba noppi su génnee dana toog ñaari at yu mu dul dawal la ndax suspension wu permis ba bokk ca daan ba ca ndoxteelu audience démb ba nag ca dogal yenu fa jibal bokk na ci bu dawalkatu waa Jakarta ba ñu doon toppee mbirum viol détournement ak pédophilie ci ab mineur boo xam ne élève la moom nag ñaari at yu muy tëdd le tribunal ba jibal ci kawam démb gannaaw ba mu génnee lii di viol ca ñetti tuuma yenu ko doon toppee bitim réew ginnaaw bu ma la nuyoo Cheikh Tidiane Sarr xibaaru bitim réew yi fan nga koy tàmbalee ca réew mi di càdd lañ koy dooree wax ci chef opposition ba daal ñu gën ko xam si sale Kep Zabo nag moom daal boo moytul nee nañ daal danañ ko tëj euh, prison wala sax yoon dana ko topp nag moom député bi doonoon fi tamit ancien chef de l'opposition maanaam jiite woon fa ku jege nag ñu gën ko xam si Saleh Kep Zabo nag daal nee nañ gannaaw bi nga xam ne nag ab courrier daal fësal nañ ko jaarale ko ci ministre bi ñu dénk wàllum euh, justice ba foofu la ca réew ma nag nga xam ne nag euh, RFI boppam sax moo ko ko fësal nag mu ngi xam le ne daal opposant boobu nag nga xam ne ne nañ daal dafa yëkkati woon ay kàddu Seydina Omar di cooke li nga xam ne nag moo di jàmmaarloo wala sax boddi wante xeet ba tax daal ñu ne dafa woote woon sax ñi nga xam ne nag ñoo di baykat ya ak ñi nga xam ne nag ñoo di sàmmkat ya daal ñu gën a fonkaat seen bopp bu baax a baax dem sax bay wax ak baykat yi ne leen nañ gën a faratalaat bu baax a baax seen euh, tool yi bañ kenn nag euh, di fa dugg nag nu nu mel nag ñu ne daal boo moytul day indi jafe ci diggante baykat yooyu ak ñi nga xam ne nag ñoo di sàmmkat ya foofu la ci réew muy ñuy wax càddu Seydina Omar ba tax daal nee nañ boo moytuwul yoon dana ko topp moom opposant bi ñu wax Saleh Kep Zabo. xabaar yi. bitim réew ci Gabon li ñuy jubali wax ci parlement ba pencum ndaw réew ma jamono ji adopté nañ daal li nga xam ne moo di constitution bu bees bi nag ñi nga xam ne nag wate nañ ñaat téeméer ak ñeent yëpp daal dañoo wate nag d' accord ne daal dañuy soppi constitution boobu nag ñaar fukk ak juróom-ñeent yi daal ñoo ci d' accordul mu doon xam mu ci jublu nag moo di daal nee nañ di defaraat texte constitution bu bu baax a baax indi yeneen ay changement ci lu soxal nag doxalinu réew ma nag waaye nag changement boobu sax wala coppite boobu nag ñu bëri ca ku jëga nag d'accorduñ ci benn yoon ndax daal dañoo jàpp ne lu ñu mel day salfaañowaat li nga xam ne moo di démocratie ba xabaar bitim réew ca Hong Kong la ñuy jubali maanaam Chine daal wax ci fukki nit ak ñaar yi nga xam ne nag ay militant lañ far ca pro démocratie ba nag ñoom daal dañ leen a condamné nag lu tollook juróom ñaari weer jàpp ñetti atu prison nag dogal boobu nag mu ngi génn daal gannaaw bi nga xam ne nag justice bu Chine nag joxe na werdigam ci lu soxal nag fukki nit ak ñaar yooyu nga xam ne nag ñu nga dëkk foofu la ca Hong Kong nag far ca pro démocratie ba nag Seydina Omar ñooñu nag li leen di toppee daal moo di nee dañoo yombal daal daw fukki nit ak ñaar ay militant pro démocratie doon jéem a jubali ca réew mi ñuy wax Taïwan. xabaar yi. bitim réew ci Argentine lañ koy jeexale wax ci congrès ba adopté nañ léegi ab loi bu bees daal buy légaliser li nga xam ne moo di avortement avortement léegi foofu la ci Argentine nag nangu nañ ko bu baax baax dogal bi nag génn na gannaaw bi nga xam ne nag toog nañ ay waxtu yu yàgg-yàgg foofu la ca pencum ndaw réew ma di xaar lu nu mel jaarale ko ci député yi nga xam ne ñoo ko doon wara a nag jàppale daal daal Seydina Omar ay soxna yu takkoo takku jaarale ko ci ay jeune fille ak ñeneen ci nga xam ne ñu ngi ci yeneen kuréel nag ñoom ñëpp daal daanaka ca buntu pencum ndaw réew ma nag lañu fanaan nag di xaar daal dogal boobu nga xam ne nag euh, fësal nañ ko gannaaw biñ ko fësalee sax ñoom ñëpp daal dañ cee kontaan bu baax a baax euh, jigéen ñooñu nag xeex boobu nag yàggoon na lool foofu la ca réew mi ñuy wax Argentine ay ñaar fukki at a ngi nii jigéen ñi di sàkku lu nu mel foofu la ca réew ma nag Seydina Omar jàppal ne daal sa réew mi di Argentine nag at mu jot daal ñu gis ne jigéen ñu bëree bëri nag dañ fay yàq seen biir nag ba tax daal kilifa ya gën leen a yombal mbir ma daganal ko léegi ca réew ma nga xam ne dara du leen ci fekk. xabaar yi xabaaru tàggat yaram nuyu naa la Moussa Kane xibaaru tàggat yaram yi fan nga koy doore El Hadj Oumar maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi ñu soba ci xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak Ligue Pro bu Sénégal nag ginnaaw bi nga xamante ni jaare na ko ci njiit ma di Sayer Seck dina dooraat championnat bi ci wàllu wàllum football patron Ligue Pro bu Sénégal nag ñëwaat na ci li nga xamante ni moom mooy dispositif sanitaire yi ak organisationnel yi ñu jël ba nga xamante ni des na ko mën a def lii di mbas mi di coronavirus bi du law Sayer Seck la ñuy déglu ci micro rajo Alfayda aujourd'hui Aujourd'hui, euh, l'autorisation est donnée pour la reprise de nos activités 2 janvier. tey nag jox nañu ndigal ngir ñu dooraat suñuy activité sportive door li nga xamante ni moom mooy championnat bi ci wàllum football jël nañu nag mboolem mi matuwaay ci wàllu wér gi yaram ndax xam ngeen ni mas mi di coronavirus ñëwaat na daan wàcc suñu kaw ak deuxième vague bi ñuy wax kon ngeen war a xam ne stade yi dootul mel ni mu doon mel jël nañ daal bépp xeetu matuwaay ba coronavirus bi du law. looloo tax sax ñu fas yéene ko euh, footballé ci huis clos des nag si ñun ñu respecté euh, li nga xamante ni moom mooy ndogal yi kilifa yi jël ba def ko euh, ni mu waree waaye tamit di sàmm bu baax li nga xamante ni moom mooy mesure barrières yi ci biir stade yi ba coronavirus bi du wëy. toutes les mesures barrières qui sont effectivement recommandées par les autorités sanitaires. xam nga ni nag championnat bi dina door ñaari fan ak ñetti fan ci waaru janvier choc bi nag mi ngi war a dox ci diggante jàmbaar ak NGB ñaari dëggal nañu ko nag ki di mbay lay nag moom mooy entraîneur bu yees bu Standard Liège foofu ca Belgique ki fi nekkoon football kaddu at ak juróom-ñett moom nag moom la ñu tabb ngir mu utu doomu France bi di Philippe Montanier nag mbay lay nag tabb nañu ko mu nekk sénégalais bu njëkk bu entraîné ab club belge ñu dem ci dend ko Europe waxtaanee fukki lu bëccëg bekk juróom-benn ci Premier League bi nag Tottenham ak Fulham moom dañu ko mujj dàqandi fukki lu bëccëg bekk juróom-benn Liga espagnole Grenade dafa am ndam ci kanamu Valence ñaari bal ci benn. benn bu benn waxtu jotee Atlético Bilbao mooy laale ak Real Sociedad Osasuna ak Alavés bu ñetti waxtu jotee ba teg fukki simili ak juróoma juróomi star africaine nag ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ñoo marqué atum 2020 Sadio ak Mohamed Salah bi nga xamante ñoo nekk champion foofu ca Angleterre Pierre-Emerick Aubameyang daal di yóbbu équipe ma ci FA Cup Jean-Pierre Nsamé daal di nay bokk nag ñi dàq dugal ci Europe Victor Osimhen nag daal xaalis bu takko takku ñu waxtaane wàllum volleyball ak njiitu fédération sénégalaise bu volleyball bu yees bi di Amadou Seye moom nag daal dinay dëggal ne dina dem fi nga xamante ni moom mooy ca France ngir uti ji ay partenaire waaye tamit daal di daje ak ay joueurs techniciens yoo xamante ni ay sénégalais ngir ñu ñëw jàpp ci li nga xamante ni moom mooy ci volleyball bi moom nag ginnaaw bi mu rafetloo tab gi ñu ko tab ñu fàttali nag du sey moom dafa daan kii di Amadou Sène ci njiitu fédération sénégalaise bu volleyball ñu waxtaane wàllum basketball nag championnat bi ci national 1 première division bi nag moom dina door sax ñaari fan ci weeru janvier ci tijjite gi nag AS bopp dina laaleek Saint-Louis basket club loolu ci jigéen ñi lay doon bu dee nag ci yeneen jongante yi nag Duc ak AS Douane ñoom dina laaleek Rail ak ñi di waa Sibac moo ngoog Alaaji Umar gannaaw ba leen ñaanale kendaa yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat jërëm yi jàngeen jëf. yéen a ngi déglu gi. mbokk yi yegg si nañu nag ci ganu xibaar yi tey nag ñuy dalal soxna Aminata Touré ñu gën koo xam ci Mimi Touré séq ak rajo Alfayda en exclusivité mu daal di dikkaat bu yaatoo yaatu ci tolluwaayu diwaanu Kaolack ndangaan ak jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi ñu ngi koy jànq jànkuwanteel waxtaan wi mi ngi ko séqoon ak Cheikh Tidiane Diagne ñu teew lu ko. ñu ngi nuyu mbokk yi fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi ak ci euh, bitim réew ci seen euh, jotaay yi nga xamante ne dañ ci dalal kàngam yi euh, tey ñu ngi ciy dalal ki nga xamante ne moom moo di madame Aminata Touré Mimi présidente noo gisee wàllu mbay mi bi. waaw a baax parce que loolu la ñuy njëkkee tey bu ñuy wax ndax jënd nañu gerte wala jënduñu gerte dafa fekk gerte am ba noppi loolu mooy pluviométrie bi maanaam taw bi macha allah yàlla indil nañu ko te loolu lu ñu ko war a sant la. maintenant nag am na debaa est-ce que euh, dañu war a euh, jaay chinois yi wala du ñu jaay chinois yi mais li ëpp solo ci man ci wàllu mbay te ñu war koo indi mooy fexe ba baykat bi du yem rek ci jaay gerteem man toujours dama koy wax dañu war a am filière agricole ndax baykat bi war naa mën a bu jaayee gerteem sax dese xott bi xotti bi ñu jox ko formation mu mën cee def aliment de bétail mën koo jaay war xotti bi mu mën cee def buum di ko jaay yooyu yëpp amoon na fi donc il foog ñu am filière gerte du rek bay jaay kon booba koom-koom bi du sakkan li tubaab naan chaine de valeur looloy indi sax nga mën a yokk liggéey bi ñu fexe aussi bay suñu gerte ñu ciy def diwlin di ko lekk ndax gerte gi du exportation rek du rek jaay Sonacos nga xam ne benn entreprise la wala jaay chinois yi déedéet dañu war a lekk suñu gerte gi dañ ko war a def di ko jëfandikoo diwlin bi indi ay huileries local yoo xam ne euh, vraiment ñu ngi fi mën a defar euh, diwlin wi bu ko defee paysan bi ci boppam non seulement béykat lay doon waaye booy xool petit entrepreneur lay doon ndax dana mën a jaay diwlin bi ci tund wi nga xam ne fa la nekk loolu nag dafa laaj ñu former ko te ITA am na possibilité yi parce que am na ci gerte gi noo koy segale dina la indil feebar loolu xam nañ ko waaye bu ñu ko formé ba ñu mën a dindi aflatoxine bi mën ko certifié ñu am ay agence yoo xam ne ñuy certifié diwlin wi bu ko defee baykat bi moom dana bay dana jaay dana mën a def diwlinam dana mën a def rakkalam dana mën a def aliment de bétail loolooy tax koom-koom bi yokk lu xalaat bi foofu la war a demee du rek dañuy jaay Sonacos wala dañuy jaay chinois te chaque année loolu lay doon voilà ak prix bi lu mu yokk-yokk dem ba trois cent trois cent cinquante mën nañoo gën a am alal bu fekkee ne suñu xalaat dem na ci ni ñu war a liggéeyee gerte bi te gerte wi dafa war a mën a am doon benn filière am chaîne de valeur kooku am na solo tourbe bi mën nañ ci sax def électricité li may wax ni du ay gént ndax ay dëkk yu bëri dañ koy def loolu it aussi dañ ko war a indi mu doon développement local communautaire baykat bi ñu former ko bu yoree gerteem dindi xott bi xam na muy transformer xott bi jaay bu bëggee jaay benn partie gerteem li nga xam ne moom la war a def jiw mu teg ko de côté li nga xam ne daf ko bëgg a def seggale ko jaay lépp ci sécurité def naa ne loolooy tax sunu gerte ak sunu koom-koom avancé loolooy tax béykat bi aussi manaam liggéeyam gën a sakkan. Euh, situation wàllug suqaleku développement ci diwaanu Kaolack lan moo ciy sa jàngat présidente. waaw Kaolack moom dañu soxla sunu koom-koom gën a yokk. kooku moom defe naa ne ñun ñëpp d'accord nañ ci bu ko defee xale yi am yeneen option lu dul rek Jakarta ndax war nañ fee indi ay usines wala usines yi fi nekk ñu suqali ko mais surtout suñu port bi nga xam ne tàmbali woon nañu ko ñu terminé ko parce que port bi moom ñun ñëpp ci amoon yaakaar Kaolack yëpp ci amoon yaakaar travaux yi nañu ko reprendre ne woon nañu dañuy gën gas bu ko defee bateau yi di jógee fu di ñëw kon loolu it bu may seet ci wàllu koom bu Kaolack moom mooy doon sama première première première préoccupation mooy nga xam ne bi waroon nañ ko fi def nañu nañu ko reprendre vraiment nañu ko reprendre ba suñu xale yi aussi mën a gis ay opportunité économique loolu commencé woon nañu ko kon nañu ko vraiment liggéey ba loolu sotti parce que inauguration amoon na fi indi woon nañu dragueur yeeg yooyu yëpp ñëwoon na kon léegi ñu ngi xaar pour que port bi ñu terminer ko am na fi zone franche bu fi nekk zone franche bi aussi ñi nga xam ne ñoo ko yor nañu fexe góorgóorlu bay entreprise mën fay ñëw parce que problème mu Kaolack problème mu koom-koom la problème mu koom-koom la boo doon compter usines yi dox fii daanaka bëriwuñu def naa ne boo nee Sonacos doo ci teg yeneen yu bëri kon war nañu leen a jàppale ba ñoom it ñu suqalikuwaat kaa ngi fi woon Sotexka nga xam ne euh, Serigne moo koy gérer Serigne boobu waaw war nañ leen a jox ay marché voilà ci wàllu bu ñu ne woon tey xale yëpp dañu war a sol tenue pour jàngi mu am ay subvention euh, xëy na tissu yi Sotexka dina ko war a mën a defar bu boobaa aussi moom dana mën a am maanaam main d'œuvre dox liggéey pour nit ñi mën a def loolu donc xalaat économique moom dafa am solo pour que ñu def ko Kaolack nag aussi dëkk la waaye ay dëkk mbay ñu ngi ko wër war nañu xool naka la ñu war a mën a amee ci intercommunalité maanaam bokk ak commune yi ay projet pour que xale yi di mën a xëy fii dem ci commune bu jege am fa ay activité économique ñëwaat ñu mën aussi suqali suñu marché bi beneen bi mooy suñu marché bi wax nañu un grand marché xam ne war nañ ko indi Kaolack kooku war nañu baral ba mu bi gis ngeen ni mu demee chaque année ñu am difficulté tolof tolof donc marché boobu nga xam ne moom la ñu wax le grand marché de Kaolack bokk na ne am donc nee naa port bi nee naa marché bu mag bi nee naa indi entreprise yi ci zone franche bi nga xam ne ci la ñu ne wax naa affaire intercommunalité maanaam commune yi mën a bokk liggéeyandoo commune yi nga xam ne am nañu euh, maanaam ay tool xale yi nga xam ne Kaolack gi la ñu gën a bëree mën a am def ay projet ay ferme yu ndaw mën a liggéey kon ay possibilité am nañ ñun ñu ci def suñu xalaat suñu xel bu ko defee projet yooyu aussi mën a jëriñ waa Kaolack ma ne Kaolack nag dama naan Kaolack ville Kaolack département Kaolack région. jërëjëf mu nekkoon Aminata Touré présidente conseil économique social ba fi woon naka noonu tamit nekkoon fii premier ministre ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant ci waxtaan wi nga xamante ne may nañu ko. li ci yéene kaay yi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 ñeent fukki doomu aadama ak benn moom la corona bi rey file ci diiwaanu Kaolack ndàngaan jamono ji nag juróom-ñaar fukki doomu aadama ak ñaar ña nga tëdd ca lalu hôpital juróom-ñaar ca ñoom ña nga ca diggante dund ak dee ba tax gouverneur bu diiwaanu Kaolack moom mi xam la li ni mel di sàkku ci askan wi ñu jël matuwaay yi te gëm ne corona lu am la na ñu takk masque yi ndax xoddeeku ca ba nga lakkalee gutt soxna Mimi Touré nag daal dinay àddu ci tolluwaayu diwaanu Kaolack ndangaan jafe-jafe yi nga xam ne moo jëm ci wàllu ko mbënd mi mi ngi sàkku ñu lijjanti ko nam gën a gaawee balaa nawet bee ñëw naka noona tamit ña ñañu daane seeni kër ca diwaanu Kahone na leen nguurug Sénégal ndàmp ca na mu gën a gaawee ndax ña nga ca ay jafe-jafe Ousmane Sonko njiital Pastef nag mi ngi woon file ci dëkk bu sell bi di Medina Baye doon joxe njaalam ginnaaw wàccub liggéey a Sayida Cheikha Mariama bintu Cheikh islaam Islam El Hadji Ibrahima Niass daal dina fay porox ndollu nag moom Ousmane Sonko ñaawlu bu baax taxawaayu njiit réew Macky Sall ak gouvernement bi nga xam ne fa ñoo bëgg a dugal njàngum góor jigéen wala néegu sëy ci l'école yi li ni mel mu jàpp ne gàcc rawut ko donte jëwriñ ju ñu dénk wàllu njàng meeg mi daal dina koy weddi ba mu set wecc li naqaree weddi nag mooy jafe yi nga xamante ne moom la Sonacos bu kaw Kaolack di jànkuwanteel jamono ji ci ñàkkuma gerte ba tax saisonniers yi yooxu wàllu ñoom ak seeni soxna la ñuy sàkk mooy ñu dooleel jaañ faada ba mu mën a jënd gerte gi ndax li ni mel moo gën sa ñoom lii nag ba mu yembee toftal nañ ci xibaaru biti réew yi àndoon ci ak Cheikh Tidiane Sarr tàggat yaram ñu àndoon ci ak Moussa Kane ganu xibaar yi Cheikh Tidiane Diagne dalaloon soxna mi mi Touré li ci yéene kaay mooy li ko jeexal auditeurs yi yéen ñi féete woon ci déglu bi sant ngërëm ñeel na leen xanaa rek ma wax leen fii amaani lay Le journal. Omar Cissé.